mbirum yàlla la yaa ngi dégg wax ji. mbirum yàlla la waaw yaa ngi dégg wax ji. pisa pisa li problème mooy wax nga dëgg de mbir mi du fata pisa fata li yàlla def rek li yàlla wax rek lay def. Mm-hmm. mbirum yàlla la. Mm-hmm. loolu moom mooy dëgg bi donc. bu fekkee ne bu fekkee ne dañoo. boo moom fa fekkoon moom danaa leen wax dëgg ji ba leen yéen dimbali leen nit ñi ak seen kuréel yi ngeen di def moom daal ah, thank you. Oustaz Diagne mais xoolal. Hmm? gars yi dañoo dañoo taal munaafiquun ñu jàng munaafiquun ba pare. ñu jàng hmm. euh, saar bi ñuy wax taxaabun. laa ilaha illa allah yusabbihu ma fi samaawaati. allahu akbar. waaw moom moo tegu ci munaafiquun lahul mulk wa lahul hamd ay laa ilaha illa allah dee déglu ma rek ustaz Diagne du loolu rek ah. ba ñu jugee ci taxaab ci kii boobu noonu taxaabun ñu dugg talaaq ah. talaaq bañ ko duggee xam nga ban moo ci talaaq talaaq mooy yaa ayyuhan nabiyyu idaa tallaqtum nisaa hay Ah, ok waaw. waaw fa talliquhunna waaye xam nga boobu boobu moom mooy ñaari saar balaa tabaarak du xam nga tabaarak. Oh, balaa tabaarak ah voilà. voilà Oustaz Diagne bon ñu ñu jàng talaaq ba pare ñu jàng taxrim du xam nga taxrim. yaa ayyuha nabiyu lima tuxarrimu lima tuqaddimu waaw ma lima tuxarrimu ma axalla allahu laka balaa balaa tabaarak ñu jàng tabaarak ñu jàng nuun wal qalam maa ngi dégg xam nga waaye waaye kii nag waaye tabaarak ah déedéet moom kay ñetti xisib lañ wax di oustaz Diagne bi lii benn xisib rek la la kii taxrim foofu la benn xisib bi yegg ñu jóge foofu ñu jàng tabarak waaye doo déglu nga naan man dama faale gis na meru yàlla loolu la nit yi war a bàyyi xel waaye meru nit ah <laughs> Ah, ah Oustaz Diagne nag da ngay wax lu am. Oustaz Diagne. waaw. Oustaz Diagne dëgg-dëgg daal ba ñu jugee loolu benn xisib la léegi ñu juyaari jugee tabarak jàng ba benn xisib la te li ñu jàng ci gée bi ma ne ko du loolu rek lañ jàng ci loolu dong daal loolu loolu loolu mi ngi jël ñaari rakka loolu mi ngi jël ñaari rakka ci biir kii bi mi ngi jël ñaari rakka ci biir naafila gi ak ñaari rakka isha ñaari rakka gée bi gée bi ñaari rakka yi liñ ci julli naafiquun nañ fa door jàng naafiquun après ñu jàng yu sabbixu bi yaa ngi dégg léegi nag ci waaw léegi waaw kañ léegi ci tarawih bi nag boobu lañ jël kële boobu lañ jël euh, talaaq ñu daal di jël euh, tahrim yaa ngi dégg ci ñaari rakka yi ñu daal di jëlaale kële ñu tabaarak nuun wal qalam du xam nga saar yooyu noonu léegi nuun wal qalam léegi waa kañ ba ñu mais ah déedéet moom kay wàcce kaamil lañ wax di ñun ñu ngi ci wàcce kaamil gi di yow da nga fàtte baqara lañ doore ah Oustaz Diagne te dañoo doore one day one day late ñun one day late bi lañ ñoom tamit dañoo waroon a def dëgg ñoom wandee sax bu ñu ñëwoon sax ci jàkka ji ci benn géey bi ñu mën a wax jibi ñang daal laa fa gis benn géey bi benn benn guddi géey waaye du du yoon déedéet xam nga man man damay wax dëgg te yàlla tax gis nga jàkka ji bu ñu góor góorloon guddi gu nekk mu mel noonu dëgg-dëgg lu ñu fi fiiwul ñoom ñoom la lu ñu fi amul rek yaa ngi dégg parce que taxu ñu waaye dëgg dit ki buy taxaw taxaw mm-hmm. dëgg yàlla moo ko fay fekk lépp lu mu bëgg yàlla dina ko ko defar mooy yéen guddi ma ne ko mbooloo bu takk boo xam ne képp ku ko gis di nga xam ne lii mbooloo la kay ah yow bu fekkee dëgg-dëgg sax gëm nga mbooloo bi ngay woote kay nga def ko bis bu nekk tray nga def ko benn semaine sax waaye léegi boo xoolee daayira gi kenn kiiwul boo xoolee kuréel gi mooy noonu boo xoolee jàkka ji tamit la même chose yaa ngi dégg ana liggéey bi ngeen def ci ci kër sëriñ bi léegi yéen a ngi jàpp ci yeneen yeneen dëkk ah ah yéen kay kenn xamul daal nu mu demee te dañuy wax dëgg te yàlla rek tax ah yow guddiwu ramadaan yëpp ñëwloo ci benn benn benn boo ñëwoon ndogu si sax nga fekkee benn ndogu jàkk ji ñoom tamit dañoo war a taxu am no américains yi dañoo war a taxaw ñoom tamit ah ñoom ñoo ko fi mën a def de keneen mënu ko fee def parce que tubaab bi ñoom dong ñoo leen xam tubaab bi african american dong dong moo mën a deal ak ñoom boo jëloon all of the athletes african american athletes against the Europe against the white kii ma ko duñu mucc yaa ngi dégg léegi dëgg bi mooy moom la war a wax gis nga bu ñu kaasee ñu ni africain yi defuñu fii dara c'est parce que africain yi ñoom persistent ñu ñoom du def saa su nekk bis bu nekk tàng-tàng loolu mooy problème bi waaye bu ñu defoon ñoom guddi gu nekk guddi ramadan yëpp ñu def ko noonu wala sax semaine bi sax friday saturday sax soo ko mënoon def noonu ah. guddi ramadan boo ci soxla kay waaye nga ne toog rek ne pat yow topp nga sax àddina ah topp nga sax xew yi xew yi daal moom ngeen ci sànni seen doole moom ngeen ci daaneel seen kile ah. ay xew yoo xamante ne man kay waxuma ci lenn lenn lenn lenn waaye li ci gën a doy waar xale yu bari yoo xam ne te nag seen alquran ñu ne ma fàtte nañ kii fàtte na waaw képp koo ci xool rek ñu ne ma ñun suñu alquran gi ma ne ko la ilaha illa allahu muhammad rasulullah te te démb ba ma ne ko xale yi di def ma nuyu ma ne ko ah yow la kan ma xool kanam gi ma ne lée mu xool ma bët ak bët maneki she was five years old running around here di jooyantu ay waay ndaw samba tey àddina so sama batiri bàyyi la dégg eh, doomu kii doomu doomu kii ma ne doomu mooy doomu kii doomu sëñ xaadim rek ma ko gars yi léegi ay mag lañu ma ne ko gooy booy léegi xoolal ma ndey janaba ma ne ko ndey ba yow doo yaa ngi fàttali ndey janaba ba muy daw fii di ñëw sama oto pour jàngi ji man loolu mel ni démb la ay yàlla sunu borom ma ne ko keroog nag mi ma yónnee addiya nag ma ma ne ko xee eh, yow moom ma ne ko taari bi kenn amul yow rek yaa am wallaay wallaay yàlla yàlla moom ma ko yàlla moom moom daal kenn du moom rek moom dong moo mën kenn mënul kenn du moom kay wallaahi dañoo war a organiser ah one pour cent ah léegi kay xanaa ñu def noonu ñu def wal asri inna al insana la fi xusrin illa lasina amanu wa amilu salihaati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bilsabr qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad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 subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin barke alquraan alkarim loolu la jërëjëf Oustaz ko ñu def noonu dinañ déggante waa dinaa la dem Ndar nii damay dem Ndar ah, ci palais ci palais jili allah jili aha nga ziyaaral ma ko non nga ziyaaral ma ko bu baax vraiment alhamdulilahi rabbil alamin ñun daal wax dëgg yàlla yàlla may nañu lu bari tabaski ñu bokk ñu bokk ak alaaji jili kay ci pale ba ah? di añ ak moom ñu koy xool mu ñuy xool <laughs> yàlla ak ay mbiram amiin wallahi est-ce ak waa waa waa kër sëñ Abbas sëñ Abbas Sall waaw wallahi bu luuxa ak Abdul Aziz ak am nañu ay kii jërëjëf waay Oustaz Diagne bég naa ci woote bi nga waxal ma loolu nga ne leen ñu góorgóorlu ñu bàyyi ñàkk fayda bi ñàkk fulla bi ma ne na gaay recommit seen mbir ci yàlla na gaay recommit seen mbir ci yàlla dégg nga wax ji moom loolu moo gën ñu recommit seen mbir ci li neex yàlla ñu bàyyi ñu bàyyi seen affaire o show bi show bi ñun gis nañu ko fépp doy na sëkk

te man ba may woote man maa njëkk ci woote kuréel fii ne kuréel man ba may yëkkati baat fii kenn nekku fii sax di fi yëkkati baat dégg nga waaye man dama ne kuréel da fi war a nekk jamono jooju yàlla ñëw na ba andi kuréel mais kuréel dégg maam de yow yaa ngi war a nekk soldaar yaa ngi dégg yow yaa ngi war a takkoo mbooloo bi di liggéey liggéey Baay Faal bi yaa ngi dégg yéen bàyyiwu leen fi dara dara jiw leen fi dara dara lu dul affaire àddina heure bu jotee nag ngeen ñëw nag ne daal moo fi moo fi sës affaire bi du demee noonu yéen ñun libération wu kuréel libération bi ci kuréel bi sax la war a jaar ñun mën nañu wax loolu ci takk mbooloo kuréel bi te takku mbooloo kuréel goo xamante ne yëkkati rek moo fa nekk yow bu ñu nee économique li société li yow yaa ngi tëdd di di naan sa sa lu neex di lekk sa kii bu jot bu ñu ñëwee rek na ne man am naa baat bu neex loolu ak xaafizul quraan yi nga xamante ne déedéet xaafizul man kay may ma rek du ñoom rek xaafizul quraan yi sax wax naa leen ko ah ramadan bu jotee ñu ñëw ñu utiliser leen ngeen yëkkati seen baat yu métti yooyu noonu après bu ngeen paree ñu jox leen xaalis ku dul jeex ngeen fàtte yàlla fàtte alaaxira nekkaat ci topp àddina bi xamu leen sax li alquran di wax wala bu ngeen ko xamee xamuleen noo nu muy nu muy tekki ci jamono ji yéen kay leen dara xamu leen dara fuñ leen yóbbu ngeen dem fa ñu jaxase leen ci seen biir sax ngeen nangu loolu moo fi sës te yéen nag kuréel gi ngeen xamante ne moom ngeen nekkee nii di yëkkati ay baat dong loolu dong loolu du loolu mooy kuréel waaw kuréel kuréel da nekk soldaar da ngay nekk mujahid bi dégg nga waaw yëkkati baat bi loolu pour wàccee nit ki la pour pour dalal nit ki la yaa ngi dégg pour mu am you li ñuy wax euh, euh, euh, kile Euh, sensation waaye dëgg-dëgg à part loolu da ngay liggéey mais fi ngeen di liggéey yéen ngeen di liggéeyal tubaab bi guddee bëccëg <laughs> suba ngoon ah tubaab bi ngeen di liggéeyal ana libération bi yéen amu leen benn plan libération amuleen leen economic infrastructure ah yéen amu leen benn type of you know euh, nu ñu koy wax di base pour you know understand pour développer the youth te youth yi xoolal ma la rek yéen seen même kuréel bi ngeen yore ñaata at. ñett at ñeent at juróomi at juróom benn at ana yuus yi nga xamante ne moom ngeen dugal ci liggéey Serigne Touba ak ci liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam amu leen ko loolu mooy problème bi ah ngeen bëgg a jékki-jékki benn guddi rek yéen ñëpp nag ak seen takku mbooloo bu dul jeex bi ah ñëw ci jàkk goo xamante ne ñoom ñi ngi am seen wàcce kaamil programme bu takk bu leer nañ moo xamante ne ñii nga xamante ne ñu ngi ñëw ñoom néew nañu dëgg la mais nag day ak committed day been coming all along yéen mënu leen ñëw rek ne yéen da ngeen di jël programme mu jàmbur it's not right it's not fair lii kay moom moom you know lii moo moo waral Quranic Revolution 2022 bi déclaration bi sax la astaghfirullah 2021 ah nit ki ñëw rek moom jàkka ji ñoom ñoo ko moom jàkka ji jàkka nit la wala léegi léegi ñu ne jàkk ji ñu ñëpp ko moom waaw parce que gars yi fundraising lañ fay wut waaye jàkk ji wa anna al masajida lillahi la suñu borooma ah. fala tad'u ma allahi ahada ah wa annahu lamma qaama abdullahi yad'uuhu kaadu yakunuuna alayhi libada xoolal ma loolu rek loolu li ci yàlla wax kay oustaz Diagne yow kay xam nga ko yow jàng ah moom googu kay loolu moom may wax ji moom moo moo moo moo moo moo waral nag loolu moom mooy wax. yàlla baax na Oustaz Dia mooy ñun tamit tey la ñuy tëj. albilal tey lay tëj. wallay tey lay tëj ah, moo tax démb lima ma ñetti xisib. ñu jëlee ko tabaaraka ñu dañ koo jàng dóor ko ba kile ba jinn ñu jëlee jinn ah. jàng ba ba insaan insaan lañ tax ah, waaw xam nga oustaz ah, loolu xam nga loolu oustaz jaay waaw léegi ñu jógee ñu jógee tabaarak ñu jàng nuun wal qalami ñu jàng alxaaqa yaa ngi dégg ñu jàng waaw alxaaqa ñu jàng saala saailun bi asaabin waaqi ngi dégg ñu jógee saala saailun ñu moo ñu jàng nuux may ma nuux lañu jàng waaye ba ñu paree ci la ñu jàng nuux après ñu jàng jin après ñu jàng jin ba ñu jàng jin ba pare ñu def mu zammil ñu def mu dassir yaa ngi dégg ñu jàng kile waa qul uhiya waaye loolu laa lay waxal ni Oustaz Diagne affaire baa ngi ah déedéet moom kay gars yi kay dañoo bàyyi seen loxo rek xam nga ñoom da ngay waar ñoom seytaane ñoom xam nañu moos alxuraan sax you ñoom seytaane la hmm? man li may wax man xam nga xam nga alquran problème bi alquran nit ki ba mu am ba mu amul alquran boobu la amul dara dara dara dara ba mu xamul alquran xamul dara dara dara dara dara ñaar ñaaree fi nekk yow boo xamee alquraan nga gëm ne dëgg dëgg dëgg dëgg lii yàlla moo ko wax doo def dara lu dul jébbalu ci suñu boroom carrément stas jaañ moom kii bi dépassé na ko waaw waaye dëgg-dëgg li ñuy wax ñun xam nañu ko yàlla alquran bi li mu ci def bu ko doomu aadama dëgg-dëgg xamee du ko bàyyi mukk-mukk pour lenn wala wuti feneen dara waaw ñaareel gi nag moom mooy nit ki xamul alquran xamul yàlla te képp ku xamul yàlla rek xamuloo sa bopp jeex na tàkk yàlla leeral na ko nañ wax na ko ba tëddal ko carrément ne lii moom lay doxale wassalaam